mbokku internet Firi Info ñu ngi fii di municipal bu Koungheul ki nga xamante mom moy mooy ñaari équipe yu finaliste yi euh, ASC Walidane ak ASC bi nga xamante mom moy mooy ASC Garab yi ki nga ki nga xamante mom moy le monsieur le maire monsieur Aline Badara bi nga xamante tay mom moom leen parrainé bés bi mu nekk bés bo xamante ni bés bu màgg la tey boo seetlee maire yi nga xam ñom ñoo nekk au niveau départemental ak yi nga xam ñom ñoo nekk ci commune moom mi nga xam ne moom jërë ngeen jëf mbokku internet Firi Info ñu ngi toog ki nga xamante mom moy monsieur le maire bi nga xam mom moy maire

internautes yi nga xamanteni nous ñoo ñuy suivre à travers Fir Info bon sentiment sentiment de satisfaction tay gis toute la jeunesse de Kungel unanimement est sortie pour nous célébrer lii donc c'est la fête du sport moo on a mis la barre très haute pour uniquement vraiment satisfaire cette jeunesse kungeloise wan ñun suñu satisfaction mooy tout le temps nekk au service de cette jeunesse la moo tax ren on na monté la barre très ci wàllu mise yi ci wàllu distinction yi nga xam ne dañ koy joxe donc moo tax vraiment kontaan leen trop ci loolu mooy wane ne tey Koungheul benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que barki démboo Njaay ñu ngi ci ay jongante tey jongante yooyu weesu na ñun kuréel yëpp ñu nekkaat benn bopp daje fii tey fa fas yéene célébrer ndaw ñi donc loolu mënuñ lu dul am ci sentiment mbégte ak satisfaction. na du la bàyyi parce mooy ni nga wax léegi comme dañuy jógee si jongante mooy ñu gis ñoo xamante ni tey ah xol mën na seet ne kuréel yëpp ñu ñoo ko bokk am na ñoo xamante ni bu dee jongante bokkoo woon ñoom parti tey ñu ngi fii nga wóor a ñu ñëw teg ci réseau bi loolu. la loolu day wane rek ne keroog le 23 janvier ci ngoon la lépp bépp jaamarloo jeex tey fi ñu dëgmal mooy tabax suñu dëkk donc ku bëgg a tabax dëkk nag da ngay boole ñëpp ànd ak ñoom jàppalante ak ñoom donc moo tax tàllal loxo ñëpp wane ne lee jongante la woon. ambition et humaine kenn ku ci ne am nga droit am ambition mais bu ambition weesoo aussi da ngay mbir mi xam ne nag lii weesu na tey fi ñu toll mooy liggéey Koungheul te pour liggéey Koungheul nag soxla nañ ñëpp moo tax ñu tàllal loxo ñëpp invité ñëpp fas yéene ànd ak ñoom ci teyu Koungheul donc loolu moo waral tey bés bii demee nii. waaw ñu gën a ñu gën a nekk benn gën a góorlu ci li nga xam ne mooy tabax suñu dëkk. parce que nous avons le dul nous ñun cette jeunesse là donc suñu sanyon, cette jeunesse là roy royaume, cette jeunesse là n'est au devant de la scène au niveau national donc moi, tax nous nous ménager d'efforts. effort pour jàppale leen uniquement dans ce sens là fexe ba nga xamante ni ñoom ñëpp tey dinañ nekk ay ndaw yoo xam dañ leen di ràññee à travers le Sénégal voire même le monde donc loolu laa gëm li ma gëm mooy Koungheul waa jàmbaar la rawatina ndaw Koungheul kon ku leen jàppale ku ne rek defe naa ne mun nañ yóbbu laa haute la très haute te mun nañ nekk des ambassadeurs de Koungheul donc maa ngi ci sant ñëpp di vraiment encourager ndaw ñi dans ce sens di wax ne c'est ça Koungheul Koungheul uni et Koungheul qui gagne waaw day continuer bu ñu paree fii tey am na lu ñuy jox aussi ndaw ñi ci kanam pour uniquement permettre leen aussi ñu mën a continuer bégee Sidi Diop dina ñëw ci ngoon ak ñoom ànd ak ñoom continuer béggee bi ba fajar incha allah loolu yëpp buñ koy def parce que ñun Koungheul la ñu am te bu ñu sañoon Koungheul nekk dëkk boo xam ne day ràññeeku ci lépp ba pare ndaw yi koy dëkkee aussi nekk ndaw yoo xamante ni vraiment dañ leen di wan ne leen ñun safoo nañ leen te dinañ leen jàppale saa su ne jërëjëf merci bien moom mooy sa xarit sa sa doomu ndey monsieur Alioune Badara lan nga ñu mën ban jàngat nga ñu mën a wax tey si bés bi waaw asalaamaaleykum waa Firi Info asalaamaaleykum département département de Koungheul euh, xanaa di sant yàlla bu baax a baax tey ku ñëw fii ci stade municipal bu commune bu Koungheul sa xol dina sedd mu nekk euh, final bu mag boo xamante ni ñu ko parrainé le maire Alioune Badara mi nga xam ne tey moom moo ñu woo pour ñu ñëw fekkee si bis bi si ndigalal le maire Mohamed Dieng le coordinateur des maires du département de Koungheul président collectif des maires de la région de kafrin honorable au conseil économique social et environnemental mu yebal ñu ñu ñëw représenté ko fii vraiment ñu gis fi loo xam ne nii lu dal xel la parce que day wane ne njaboot ak président Macky Sall ñoom ñëpp benn lan merci beaucoup Babou Bilal duñ la bàyyi en tant que ndaw tey ndaw yu bëri yi nekk ci biir département bu Koungheul ñu ngi bàyyi xel tey lan nga ban message nga war a nga boo xam ne man nga ko lancer pour ndaw yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk fii ci biir commune bu Koungheul wala ci département bu Koungheul. waaw euh, message bi may lancer rek mooy ñu gën a booloo gën a doon benn parce que. ku gis lii nga xamante ne moment bi mooy déroulé ci département bi xool dina xel dina dal parce que moment bi may wax ak yow nii ndaw ñëpp doon nañ benn vraiment di xàccandoo di dóorandoo te loolu la président Macky Sall bëgg loolu la honorable Mohamed bëgg ñi nga xamante ni tey ñooy maire yi nekk ci département bi ñëpp moom lañ bëgg rawatina borom bis bi di Alioune Badara mooy ndaw yëpp doon benn ngir lan ngir développement wu département de Koungheul vraiment dañuy gis ne ak lu nu gis ci département bi dal na xel bu baax a baax. L'ASC Waldaan de la zone 1A. donc dañuy sante yalla rek bimu ñu maye ñi tambali bañ ci def ci cëppaandaw gi donc je pense que tay ci final la nek bu nekké ci final nak ku wax final nag y' a pas de vainqueur ni de vaincu mais c'est la jeunesse congoloise qui gagne tout son temps euh, dans son ensemble. donc à travers le président de la structure à l'occurrence monsieur Bassirou et l'ensemble des membres du bureau nous remercions chaleureusement le parrain. qui a sorti beaucoup de moyens pour que la fête soit belle, parce que c'est la fête de la jeunesse, c'est la, la, fête des membres du comité sportif aussi. Donc sur ce, a aussi, aussi, aussi, parce que vous êtes entrés aussi de faire un excellent travail dans tout le département, parce que suñu yeboone yéenay suñu y TV a suñu TFM aussi donc là aussi gàcc Lama, Free Info mais gàcc aussi wa et toute la presse en ligne mais mention spéciale à Firi Info. ndaw yi ndaw donc ñi xam ne sport foo agré la rek euh, boo gañee foo agré la boo ñàkkee foo agré la te dama ne sport boo ci nekkee amul amul y' a pas de vainqueur y' a pas mais c' est euh, toute la jeunesse qui gagne donc nañ ubbi xoole yaaral ko rek euh, buñ nee sport nag dañu war a sentir catégorie yëpp da ci war gis seen bopp catégorie sportive ñi bañ a oublier basket bi ñi bañ a fàtte aussi athlétisme bi aussi. mais buñ nee sport rek nañ fexe ba aussi gis sen bop. je pense que le parrain aussi a compris le message du président de la zone et il a et il a décaissé beaucoup de moyens pour euh, aider les jeunes à se divertir aussi voilà merci. La final bu mag bi ñaar équipe bu mag seeku bo muy zone muy euh, ASC bu garab bi ak ASC bu Walidane tay yow nga nek membre bi nga xamanteni di membre zone A nga bokk tey lan nga mëna a wax tey en tant que sportif. waaw euh, ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di. sant ñëpp di nuyu waa Firi Info leen jaafal jaajëfal si liggéey bu rafet bu def waaw di vrai di am benn contentement bu mag rek parce que lii depuis début nawetaan ñu ngi ko commencé woon zone 1A di organiser championnat bi tey mu nekk épilogue bi si diggante ñaari ASC yi gën mag yaa mën naa wax ci zone bi mi ASC Garab gi ak ASC Wal daan di dajee tey final bi parrain bi di Alioune Badiorol yi macha allah tey mobilisation bi war na dayoo ñaari ASC yi niñ toll parce que nit ñëpp ñëw nañ Koungheul tey booy xool ñëpp ñëw nañ waroon na tamit nit ñi namoon nañ football namoon nañ ko di féliciter tamit ASC yi si fair play biñ koy football nii instant bi te ñu ngi koy football dara xew di ñaan yàlla terminer ko ci alhamdulilah rek waaw. ban message ngay lancer ndaw ñi ci ci non violence comme tey jamono yi. waaw euh, non violence mom mom la ñuy lancer ñëpp mi ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp parce que violence moom lu mu dugg rek da koy yàq ndax mën nga koo commencer mais doo xam fu mu yem sa mbokk sa rakk sa xarit man na see gaañu parce que tey dafa doon loo xam ne surtout nawetaan dafa sensible nawetaan dafa sensible bu ñëwee nit ñi dañuy yor yeneen façon jikkoo dañuy yor yeneen façon xar mais nit ñi dangay xam ne melul ñoom ndax après bu passé rek dangay gis ku la romb sax di yor yeneen kanam même ñun ñu koy organiser sax da ngay gis suñ biir sax day am lool wakkantuma ak joueurs yeeg euh, entre ASC yeeg yooyu noonu donc di lancer ñëpp ñu def ko dans le fair play rek moo gën waaw Thank <laughs> you.